door macha allah suñu bàq yaakaar naa ni kon jaajëfal itam. jërëjëf oustaz <laughs> jaajëfal la yooyu itam jaajëfal auditeurs yi nga xam ne ñoo doon woote ak suñu partenaire boobu nga xam ne moom la ñu àndal di waa lobbu maam am jaara bés eh, jaajëfal ko baax te ñaanal ko nag ndax chaque bu ñu musantalu fii. Mhm. ñu leen di beral ak ñaan. wax mhm. dëgg yàlla muy sëñ Aliou Lo ak mbooleem ñu nekk ca barab ba. xam mhm. zaak des. yàlla yàlla musal leen ci corona musal ci mbooleem nag kuy être humain. boo nee jullit sax mu xat. waaye kuy noy noyyi rek te nit yal na la ci yàlla musal. amiin yi leen aar barab ba barkeel leen ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a xorama émission bi. te di dugal seenu ñaq. kon yal na yàlla barkeel. amiin yaa rabbal aalamiin. naka noonu itam defal ko suñu beneen partenaire bi di waa Madaar. ak seen karaw kër xaadim. seen karaw kër xaadim. Mhm. nga xamante ne ñoom itam eh, nit yu baax lañ. Mhm. karaw yu baax te wér. te qualité ñoom ñoom rek nga koy mën a amee. ndeysaan ginnaaw loolu nag madaar mi nga xamante ne moom ko karo ku ne. Hmm. Mm, moo gën a gaaw ci setal <laughs> ay taal. <laughs> bu loog bu ñëwee bu bu gaz bi ñëwee togg. Hmm. tilimal taxal. Hmm. ñuy jëfandikoo. ci karo yi. madaar rek kay ñëw. dëgg kon yal yàlla barkeel leen. amiin yaa rabbal aalamiin. yal na yàlla mm, def chiffre d'affaires bu yaatu. amiin ak ñi nga xamante ne ñëpp yéene nañoo ñëw ak ñi nga xamante ne ñëwoon xam naa nag li nga wax ni coronavirus moom. Mm-hmm. Euh, laal na secteur yëpp. Mm-hmm. waaye yal na fa yam. amiin te mu dee koy fa mu tëddoon nelaw kenn xamu yàlla bu kenn xamati. amiin. yaakaar naa loolu baax na ci wallaay baax na ci yal na yàlla nangu ñaan yooyu defal ko itam auditeurs yi nga xam ne ñoo doon woote ñi jot a egsi ak ñi euh, doon woote te egsi wuñ mm-hmm. waaye bu baax itam waa bitim réew ñoom itam euh, bari na réew yoo xam ne fi mu ne ña nga toog benn barab ni ma koy faral di waxee tey ñoom euh, day metti waale ndax da ngaa xaw a ñun ñi nga xam ne ñi ngi tëju Dakar mënu ñoo dem Jurbel rek ñu ngi jaaxle mm-hmm. waaye ñu tëju réew ak réew nag boole ca itam lu baree bari ci réew mi fii li olof naan lu fi dee yaa ko rey mm-hmm. añ mbooloo yu baree bari wékku ci seen ginnaaw ndeysaan ñooñu di gànn ñu ñaanal bu baax mm-hmm. euh, Pape Mor Diaw sànq rek maa jot message am su sëñ Doora Sylla ak suñu mbokk yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ci gestuwaay te di ay membre ci ci émission yi mm-hmm. membre ci Sud FM sax ndax mm-hmm. émission bu fi daw bu ne dañ ci mm-hmm. contribuer kon yal na yàlla sàmm leen aar leen ngeen mucc ni asamaan mucc ci max wallaay waaw metti na ci ñun waaye ci yéen la gën a metti ndax foofu la gën a tare foofu la gën a mettee te ay jàmbur ngeen fa ah yërëm sa mbokk moo gën a yomb nga yërëm ab jàmbur kon nag yal na yàlla mi nga xam te ne loxoom jot na fu ne yal na leen teg loxo mu aar leen làq leen fa yàq yëggul te fiit fi mu fi ñëw yal na fi dee ba bu mu demate fenn ñu nekk sa nekkaat suñu activité ndax àddina bi tam boo ñun bu nu wéree te àddina bi wérul tam relation yi dootul mën a dox kon dañuy tëju rek te tëju tam warta yàgg dëgg ci kon yal na yàlla jeexal ko ci àdduna bi fépp nag rawul moom ñuy wax mm-hmm. loolu mu xalaat ko su néew lu mu bon man déchargé na ay coono lu mm-hmm. dëgg dëgg na déchargé na ndax lu bon la ñu naan baax na baaxul nii la du noonu lu bon sax lu bon bon sax am nañu ko da mm-hmm. bon bu ñu ko amul woon tey di di làmbatu ba nag day gën a metti kon nag docteur dafay laaj bi xolam bay leer ngir malaat bi kooku Youssou Ndour moo ko wax wallaay euh, te itam euh, Aloyse Waly Diouf bi nga xamante ne mooy yore communication bu ministre de la santé. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ak seen kilifa muy Abdoulaye Diouf Sarr. Mm-hmm. ñu sant leen bu baax gërëm leen te ñaanal leen. Mm-hmm. masawu leen métti mu doy waar. dëgg la waaye sa jamono bu ñuy génn ci écran bi bay wax. ndeysaan kenn dootu yëngatu. dëgg la bu la fekk ngay lekk na nga tekk di xaar ndax wàññiku na wala wàññikuwul macha allah wala technique de communication bi ñuy def ak askan wi mhm. ba yàlla askan wi yëg nañ ko mhm. na yàlla seeral lépp mu jeex amiin amiin laal rabbal aalamiin jërëjëf Oustaz Mbaye kàddu yooyu am na solo lool rawatina bitim réew kàddu yooyu nga fa wax mhm. ndax ñoom ay xaaj lañ xam naa ñëpp a mettale waaye ñi gën a mettale mooy ñi ñuy wax moodu moodu yi nga xam ne sa liggéeyu bopp nga yor mm. xëy na sax ñenn ñi amaguñoon ay kayit ba bu ndimbal doon ñëw mën naa am yow doo ca bokkagun ak yeneen yu baree bare yoo xam ne mi ngi ci biir moom daal euh, doy na waar waaye nag lu fi jaar di jàll rek la euh, donc yal na gaaw jeex ak jàmm yal na gaaw jeex jàmm tey jii de xam naa bala maa ñëw ci laaj auditeurs yi dégg nga ministre bi li mu wax mm-hmm. ci kaa yi nga xam ne yokku na am ci kaa yoo xam ne ay gana ko fi indi am ci yoo xam ne ci réew mi la dëkk ba tudd ci benn kaa boo xamante ne xamoon nga kaa xam ne gi ñu jàppoon moom day jékki-jékki rek ne cëpp feeñ ci biir duñ xam kum laal ak kum laalut ak fan la la nga xam ne moo ci aju euh, loolu itam de xam naa dana soxla ñu gën a laxasuwaat gën a jàjjuwaat gën a yëg ne mbir mi daal euh, ba léegi jeexagut mi ngi fi maanaam lépp lu ñuy wax ne moo ko fii jëlee war nañ cee gën a góorgóorlu wallaahi Mbàkke yàlla xam ne lépp lu ci waay wax rek doyul mm-hmm. gis nga lépp lu waay wax ci fagaru ak soññe euh, rek doyul ndax mm-hmm. bala nga daan naan day fekk nga nekk fa dëgg gis nga wér-gu-yaram mooy lépp mm-hmm. xam nga maa ngi nii wax ak yoon ni bi maa ngi jàkkaarloog beneen télévision nii bu mm-hmm. étranger ci biir studio bi ñu ngi lay wan keesi néew yi nga xam ne ñu ngi ci Italie ndeysaan waaw Italie moom lu méttee fa waaw nga xamante ni labbe yu leen mën a taxawu sax ci seen diine ba denc leen amuñu ko ndax ñoom it dañ caa bokk waaw réew bu ñu demee ba docteur ya ak euh, sëriñ sa mm-hmm. ak leen natti responsable jiite mm-hmm. dañ leen dañoo nërmeelu ci loolu mm-hmm. yow man ne ca àll ba ñun la fegul doo fegu ak lay woo mën a indi ak loo mën a teg ci loxo nit ñi da nga koo taal rek mais boo tëddee ci ne làcc di wàccu sa doom di wécc sa jabar di wécc dootoo jàngale ji mhm. dootoo dem juma dëgg la loolu nag la ñuy fegu wallaay ba lañ cay egg mhm. na ñëpp reste des jeunes nañu toog mhm. maanaam toog gi daa bokk ci liy tax feebar bi jóge fi. waaw day bokk ci li koy xeex. nga xam ne toog gi nekkut dañ ñoo pine. nekkut dañ ñoo jaay doole. Hmm. nekkut ne daa am kuñ koy defal. Hmm. wala daa am koo xam ne buñ toogee moom la ñuy satisfaire waaye toog gi. Hmm. ak moytu dajaloo gi. ak sàmmonte cet gi daa bokk ci li fiy jëlee jàngoro yi. li fi waaw daa bokk ci li koy xeex. am na nag loo lu ma benn mbokk taalibe wax. donc euh, suñu mbokk mooy euh, kii Guèye. la. bu xaadim rasul Guèye. xaadim rasul Guèye waaw moom suñu mbokku daara di bokk ci daara ji wax dëgg yàlla. ndeysaan euh, ci noddu yi. Mhm. noddu jàkk yi. waaw wax dëgg yàlla terewuñu noddu nag. noonu doon noddu nag moom ko bëgg a tere ku nekk mhm. yaa ngi bëgg nag jéggi jéggi dayoo euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam terewul noddu. Mhm. dañu wax ni dajaloo ca jàkka ja. moom du joxe feebar. waaw joxewul feebar maanaam déggu nodd joxewul feebar. baatu bi yàlla sax dafa war a feeñ ci réew. peuple bu lëmm ñëpp ni selaw ñu jékki-jékki ni allahu akbar. dañuy dañuy tere nodd wala waa jàkk yi ñoo àgg rek ci ñoom it bañ a nodd. wala wala dañ ne la bu leen di nodd dafa moom dafa dafa nodd ñu jàpp ko. nodd ñu jàpp la. waaw loolu loolu loolu jaaduwul. Ah. loolu jaaduwul kenn ci ñun li ñu jàng suñu diine. wax ma nag suñu loi ak arrêté yi nga xam jël dama xam lu ne ca loi ba. Mhm. waaye. non arrêté yi moom. ay tere maanaam rassemblement la ñu wax. rassemblement la ñu wax wax waaye nag bu nodd jotee nag mhm. bilaal bi dugg wala imaam bi dugg noddu pour yëgle ni waxtu yu jot na. ba pare ni julli leen seen i kër. dëgg la ma profité ci Mbàkke euh, gërëm sama imaam imaam euh, Ahmad Diallo. Hmm. ak euh, imaam Ibrahima Ba. Hmm. Ibrahima Ba imaam la mais comme këram xaw na distance ak jàkka ja day yéeg ci kaw étage hmm. yor ra micro am. fa lay nodde nodd ci kaw xam ne day tiib daanaka dëkk yëpp. pour ñu xam ne waxtu yu jot na. ba pare day la daaneel ni. julli leen seeni kër. Mhm. waxtu julli jot na julli leen seen kër. Mhm. loolu kenn terewu ko. dëgg la. li ñu ba jéem a ubbi jàkka ji nit ñi di julli. Mhm. di defi sàppe. ndax loolu nit mën nañu bokk ci sàppe si wàlle ko. lor waa jàkka ja ñu infecté jàkka ja loolu la ñuy bañ mm-hmm. waaye nag nodd nag wax dëgg yàlla man jàpp ma ni war nañ ko mën tere mm-hmm. masha allah am na solo Oustaz Mbaye jërëjëf ci leeral yooyu xam naa onze heures jot na dañuy daal dem jëli xibaar yi bitim réew yi buñ dellu see nag door a ñëw ci laaj yi nga yi nga xam ne moom la fi auditeurs yi indi insha allah jërëjëf jërëjëf mm-hmm. baax jërëjëf sëñ Mbacke Sylla ak Alassane Wade mi nekkoon ci technique bi kon nag 12 euh, heures lañ dese ñoom daañu ñëwaat gën ko yaatal ci français bi incha allah bu 13 heures Hadj Malick Maodo chef d'escrivain dañoo gën a yaatal xabaar ci wolof. kon li ci des mooy sëñ Mbacke ñu desat ci suñu bi ànd yow. ci xaaj bu mujj bi di xaaj bi nga xam ne itam mooy tombé ak laaj yi nga xam ne moom la auditeurs yi wootee indi ak seen ay commentaire ak yi nga xam ne moom lañu indi ci émission bi. Mm-hmm. ki njëkkoon a dugg di Serigne Saliou euh, Kër Samba la doon woote. moom daa indi ay nuyoom ak ay siyaareem ak ay commentaire ci actualité bi ak tolluwaayu jamono waaye nag jàng na fi jenn aaya muy wa anna haada siraati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fa tafarraqa bikum an sabili eh, aaya jooju la jàng aaya jàng ci surat an am aaya cent cinquante trois est-ce que mhm. jërëjëf sëñ Mbàkke subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim eh, jaajëfal ko baax moom sëñ Saliou laay jii dafay dafay euh, reclasser waat nit ñi wala boog recadrer mm-hmm. ñu xam lépp lu mën a xew rek yàlla moom mi ngi mm-hmm. yàlla nee na recadrer waaw mu ngoog <laughs> waaw sëñ Maodo moo ma ne recadré. recadré waaw recadré. recadré <laughs> waaw waaw. nga tubaab booy. bi laaj ci mënul nag. <laughs> non dégg nga tubaab ay ca Eh, ana haza siraat yi suñu borom nee na xam leen ni lii mooy moo yoon ku bëgg a ci man jaaral si bu kenn jaar ci ñàll yi yoon wi jëkk xocc jëm ci man mooy lii ma leen tëral mooy sharia ak alquran jaar leen ci rikkiwaay wala tabi subu la bu leen topp ñella ñellaan yi mm-hmm. fatafarraqa bikum ñella ñellaan yi kat day tax mu séparé leen ñala ñalaan yu ndaw yi mhm. ngir yu ndaw yi gis-gis ñu bari yi lu bare bare bari ñëw loo wax ñun la waaye nag mhm. koo tudd ñu nag waaye nag te booy jàpp tale seytaane dëgg nit képp koo ne bokk ne yàlla nee na mun la waaye nag mhm. jàppal ne boobu tale nag jàpp diine tënku ci ni mu ñu ko waxe dana tax ñu dund wu neex dëgg waaye bis bu ñu fi bàyyee diine tënku ci leneen Mm-hmm. dana dund lu gu metti yàlla nee na mm-hmm. man aarada an zikri mm-hmm. fa inna lahu ma'ishan danka képp ku ma jox samay tranga nga foye ko caaxaane ko du ma ko nangu de waaye di nga dund lu gu metti dund gu tar wallahu taala alam wallaay am na solo Oustaz Mbaye ci aaya ji ni nga ko waxee daa mel ne kon yoonu jëm ci yàlla wenn dong la donc léegi nag bu ci ñëpp sóoboo moom duñu am problème bu ci ñëpp waaye bu buñ ko bàyyee daal di eh, indi ay jaxase indi ay njaxas njaxas nga foraatu ko lu ne nga ubbi sab nopp ñu dëkkal la ci mhm. lu nga gëm ko doctrine bu ne nga nga ñam ca mhm. bëgg a jubóog ñëpp mhm. te jubóog ñëpp bu yàggee naa féq ngay doon dëgg la bànneexu ñëpp jamono boo ko bëggee wut naa féq ngay doon est-ce que di nga sëgg loo war sëgg wala nga wanaas loo war a wala nga tàcc loo xamante ne waruloo koo tàcc dëgg la est-ce que euh, <laughs> muy lu am solo xam nga waxee ne alxuraan yéeme gi mu yéeme ustaas day day gën di yéeme rek <laughs> ndax boo demee ci alfaatiha ma nga doon wax yaa ngi ko doon wax naan ihdina siraatal mustaqim <laughs> nga ñëw fii tey mu nekk benn ndénkaan loo xam day mel ne yàlla moo koy dénk jaam ñi ne sama yoon wi moom wenn dong la mm-hmm. euh, muy siraatal mustaqim mm-hmm. waaye daal cee wax nag ne topp leen ko maanaam soobu leen ci xàll bi waaye bu leen jaar ci ñàll yi bu leen jaar waaw bu leen jaar ci ñàll yi mm-hmm. dafa yaatu bu leen jaar ci yi soobu ci sharia muy lu sayewu set wicc woo koŋ mu mm-hmm. yàlla nee def leen def leen bu ne bàyyi leen bàyyi leen dëgg la ka ca nekk moo gën a wér ka ca nekkul mm-hmm. euh, bu nee siraat mustaqim nag tekkiwul da nga ciy génnee tarixa yi mm-hmm. tarixa yi ci siraat mustaqim la juddu judd siraat mustaqim a leen jur siraat mustaqim a leen parce que amul lenn lu tarixa yi def lu siraat mustaqim tere julli julli juróom dëgg la ànd ak njàpp mu tooy xib mm-hmm. di ko defee ca mbooloo ma bu dul temps bu mel ne biiru am mm-hmm. di ko defee ca mbooloo ma mm-hmm. wasifa suba ak ngoon xadratu juma ajjuma liggéeyi wàcc du la sa njaboot loolu bu rekkente ne du du siraatu mustaqim xaw ma luy siraatu mustaqim du dëgg sëñ Bamba loolu la jàngale suñu yonent bi ci yëf loolu la jàngale waaw loolu la jàngale kenn waxatu lu génn sharia alquran jii rek ka fi ne leneen nekku fi keneen indiwul dara ne jeneen alquran am na keneen ko wax leneen na ma ko xam na ma ko wax wallahu taala alam jërëjëf am na solo Oustaz Mbaye wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kon wala tattabi'u subula fatafaraqa bikum an sabili eh, lam ci teg nag mooy lu am solo Oustaz Mbaye muy zalikum wasfaakum bihi laallakum tattaquun euh, ne loolu daal mooy li nga xam ne moom laa leen di dénk daal jàpp leen ci buum googu euh, nga xamante ne moom ngeen bokk hmm. léeg-léeg nag bu buñ ci xasee ba jàpp mi ngi mel ne bu buñ soobu woon ci yoon wi autoroute bi hmm. euh, ne tey Touba lañ jëm hmm. am koo xam ne 4 kaat la yor am koo xamante ne daa yor Mercedes am bu ndaw am ko yor ab am njaganjaay am ko yor camion li ci am solo rek mooy ñun ñëpp lañ tegu ci yoon wi ku tegu ci yoon wi tey dox rek ku àgg danga àgg waaye kuy teggi moom mag ma ba muy jàngale nee nañ sax Sëriñ Tuubaa moo ko doon wax dafa doon wax naan ni ngeen jaar ci ngir mi te bàyyi ñàll yi ndax nee na ko teggi ku ne fii fu mu maanaam kuy teggi ku ne fii fu mu rek xam nga ku réer nu muy def hé waaju baax mu ne naam nga def waa fii fan la mu ne <laughs> mun la yaa nga kon de xanaa damay jël càmmoñ xam nga kon kuy teggi ku ne fii fu mu rek lay mujje fii fu mu rek ngay ah, mujje hmm. démb ni res ci kaw dara rek day wàññi ko def ki jikkoy gunóor masha Allah gunóor du wàññi ko mukk te dalul ci kaw dara hmm. nanga nga seetlu gunóor gunóor buy dox mm-hmm. day dem rek ba mbëkk rek bu ni tuy ci kaw la door a jàpp <laughs> est loolu nag la ñu yàlla di bañal mm-hmm. mu ni saalikum wasaakum bi loolu laa leen dénk de mm-hmm. jàpp jàpp leen ci laa la ko te taxul ndax kon léegi ngeen am diplôme ragal yàlla macha allah diplôme ragal mooy am am laissez-passer taxawaam boo xasee am. Mhm. boo duggee bàmmeel rek laissez passer nga. macha allah jërëjëf kon tey bu ñu ko doon compter indi indi ci contexte bi. Mhm. wa anna haza sirati mustaqiman mhm. dañuy wax naan benn méthode rek lañu am. wala benn actualité rek la ñu war a am. benn soxla rek la war a am jamono jii. mooy soxla nan la ñuy def. ba coronavirus génn ci réew mi. waaye nag bu ñu topp bu ñu topp détails yi. wala kon wala tatab euh, mm-hmm. euh, mm-hmm. euh, wala boobu buñ topp subula yi mm-hmm. mooy kon buñ topp détails yi buñ topp kii la mu wax nam ko waxe nam ko defee nam ko nàngamee moom daal nañ am benn objectif mooy demaat ba am jàmm dooratal yeneen détails yi bu mën na ñàkk moom daal duñu wiir lépp comme ni ko sunu naw lay defee hmm. wéer lépp rek ba am jàmm ndax léegi doon xeex mbas mi hmm. boo demee RTS loolu xeex mbas mi hmm. ñii xeex corona <laughs> waaw ci olof lañ koy waxee noonu waaw nañ koy waxee noonu ndax itam dafa doon lu yàgg am ci àdduna xam nga boori mille euh, na fi mooy grippe espagnole nañ ko doon tuddee wala yeneen xeeti tur yoo xam ne amoon na ko loolu itam yéeme woon na lool waaw bari nañ ñu baree bari ci réew mi ñoo xam ne ci lañ faatoo mooy peste waaw peste Euh, xam nga euh, loolu yàgg na yaakaar côté yooyu nga wax la. waaw te daanaka fa mu mujjee ak askan wi. Mhm. neexul woon. Mhm. am na dëkk yoo xam ne noonu lañ toxoo. Mhm. maa ngi dégg dem benn waxtaan bu ñu wax ci Cambérène gii euh, foofu du woon cosaan dëkku cosaan bi. peste tax ñu toxu woon. waaw ah, loolu bari na ba ci Medina sax. waaw mën nga ba ci Medina gi xam nga eh, Sidi Hadj Malick moom tuddee naa. Mhm. la taala dëgg la xuruxaan lañ ko daan wax. xuruxaan ngoog yow <laughs> ci xam la fi eh, xuru Mbàkke nga xam te ne sëñ mag bi dëkkoon na fi tam. Mhm. loolu amoon na fa dégg naa si am na ñenn leneen ci ay njabootam yu mhm. feebar. moo amul frontière. dëgg la bu xasee ba ñëw mu épidémie. ku yëbu rek xeex ga koy xeex mooy topp ndigalu docteur yi. ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc foofu. su ñun nag suñu sikk. mooy bu bu weeru koor ñëwee ñëpp ay ustaas lañ ñëpp ay imaam lañ. Mm-hmm. ku ne di dugal ci réseaux sociaux di ruube ku di wax. Mm-hmm. bu coupe d'Afrique bi jub jub see ñëpp ay entraîneur lañ. Mm-hmm. ku ne di wax joueur bi baax joueur bi baaxul kii yàq ba bi coono du ñu bàyyi mukk ñi nga xam te ñoo ci spécialisé wu ñu ñu wax ci. fi mu ne bi ki nii ñëpp ay docteur lañ. ndeysaan ku ne bëgg a dëgg la. ñii naan sëñ bi bindoon na bi ni ko nekk ku ko xool ni nga def nangam nangam ñii naan sëñ bi jàngal d'accord ñoom ba ñu seen ngëm-ngëm fa ñu toll woon di jàng mooy jàll ñun suñu ngëm-ngëm tolluwul foofu hmm. faatiha yaa ngi dégg inna rasula bi qadril mursi lixtaki bi hmm. xarit Idul Walid bi ko yonent bi saa tam yónnee di ko récupéré loo ay azaka dafa dem ca dëkk ba ñu ni ko hmm. dégg nañ la waaye gëmunu la léegi nag pour ñu xam ne yonent moo la yónni dañuy lay dañuy dañuy def posen ci kaas bi hmm. nga naan ko boo deewul ñu xam ne moo la yónni boo hmm. dee nag ñu noppalu hmm. xoolal ma doolu xanaa dëgër boobu foofu la toll mu ñu leen di posene leen ñu posene ba mu ba doos bi saf ñu jox ko mu naan toog di waxtaan ñoom deux heures de temps dara xewul ñu ne ko wax nga dëgg yónni sa alayhi wa moo la yónni bi mu ko nettali sàng bi alayhi salaam dañu ko xaalit lan nga jàng mm-hmm. mu ne ko faatixatul kitaab laa jàng waaw léegi demal ñu jox la posa nga jàng faatixa nga naan ko <laughs> ndeysaan boo demee ci xalaat sax si daaj ma ne ñu ngi wax ni xobbun wayum nunu wax nun ma maa abdilun fukki mbir ak nangam yi nga xam ne moom la fi jibril jëlee barkeem mu dem mm-hmm. barkeeb alquran mm-hmm. dem na yërmande ñeewante maandu fukk la bi yoo xam ne jibil dellusiwaat na jëlee ko ci circuit bi mhm. donc li dese mooy demee demee xel mhm. te xel mu rafet tuute tuute la te doon waliyu ndeysaan te yàlla jox nañu xel jox nañu mhm. am xam-xam lii tubaab yi di def suñu docteur yi di ko def ba fe ba test bi amee amul woon macha allah kon nag ñu ñu xeex choléra dëgg la booba dañoo àggoon ci lakk lakk dëkk bi nga xamante ne bu dalee kenn ci dëkk bu mhm. tubaab bi moom li muy wax mooy ñam dalagut nañ taxaw ne ah. ñu taxaw ba sori ñu lakk dëkk ba mu lakk ba jeex ñu dem sañ ci feneen wala ñu jéem a lay foofu sañcaat feneen ndax xëy na fàggu yeeg fagaru yu mel nii baree bare amul woon foofu lañ toll woon boobaa nag góorgóorlu ceeg bàyyi ci xel day nekk lu war am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf sëñ Saliou moom mu doon wootee ci kër Sàmbaka ki ci topp mooy Mbay Njaay di wootee fële ci Kaolack ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Kaolack yëpp nee na moom dafa indi ab laaj laajam bi mi ngi koy joxoñ ci ñaar ñoo xam ne dañoo am jafe-jafe ñaari way dencante nee na nag bi ñu amee jafe-jafe ba ku góor ki wàcc ko ginnaaw ba ñu waat mu bëgg koo dencaat bàyyi ku jigéen ci nag nee na du ko may eh, moom bañ na daal ne du takkaat sëy bi léegi nag am na sax ñu wax ku góor ki ne ko tee ngaa dem ci keneen kon mu may la ko moom nag day laaj ndax keneen mën na koo maye ku góor ki itam daa wax ne bu ko bàyyi ndaw si du may daal xelam du ci dal mi ngi sàkku sax nga def ci ay tànki jéego nga dox ci ay jéegoy defar <laughs> waaw comme bëgg na ma dox ci jéego incha allah bu jógee Mm, man sama numéro yaakaar naa mooy 635 10 21. su ma ci mënee woo du soobee suñu borom lu ma ci man ngir dim suñu borom ku ci mën a dimbali it mu dimbali ndax yaakaar koo tas. incha allah euh, lu ci waaye mën it mu jàppale ñu ci. Mm-hmm. naa Oustaz Alioune Sall bi fekkee mi ngi ñu dégg it. Mm-hmm. mi ngi ànd ak ñun jotaay mi ngi ànd ak ñun euh, xelam rafet na. Mm-hmm. xam-xamam mate na la. moom itam bu ko mënee jot. incha allah comme du joxe numéro am direct. bu wootee fii rek dana jot numéro Oustaz. ci ma Mor Seck ak mag yi nga xam ne ñëpp Ah, mag yi daara ji lañu loolu ñuy ma sas yéen laa koy sas luñ ci man ñu jàpp ci mhm. bu dee li nga xamante ne moom la laaj nag baay boobu maa ngi koy xamal ni la mu bañ mhm. ah doom day toll foo xamante ne du wér mukk lu dul bàyyi moo koy maye mhm. waaye doom dana toll foo xamante ni itam jigéen dana toll foo xamante ne mën a maye boppam dina toll foo dana dana joxe ndigal ñu maye ko jigéen dana toll foo xamante ne doom dana ko mën a maye loolu buñ ko xamee rek noppalu moom nag ko maye woon nañ ko mu sëyi ba yàqu am seen diggante kon wa wa jaaduwul bàyyam ni duma ko mayewaat na dellu na na leen delloo comme ñaam ñaar bëggantewaat nañu na leen maye suñu njaaloowee wala ñu def lu naqari yàlla moom moom mooy responsable ginnaaw mënoo ko sàmm mënoo téeb tànkam mënoo ko topp mënoo ko lijjanti farata taxaw na bàyyil bàyyil bàyyil sunna mhm. di loolu sax du sunna tereeb say du sunna lu ci xew ëllëg fu ñu wéet ëllëg def lu naka yàlla yow mu leen bañ a boole yaay responsable mhm. loolu na leer ci boppam dëgg la ak lu ñu la mën a wax nag ak lu mën a mën a wax te jigéen kenn du ko far la ci bu meree mhm. bu meree rek ñëw dina sama jëkkër saaga na ma sama jëkkër dóor na ma sama jëkkër xas na ma bul ko mere bul ko la ca temps boobu bul ko merle bul jël position mhm. waaye lu mu sedd mhm. mus naa am góor gu baax sama bàyyi yàlla ko yàlla yërëm amiin amiin mus nañu am kaa mel noonu suñu jigéen ñëw wax nu ni jëkkëram da koo dóor saaga mhm. ma jël yet sama sama mag seex mbay <laughs> jël yet ñëpp di xaar bu mu ñëw waaw bi bàyyi ba nu dal mu yóbbu njàll ba ni yéen a dof Mm-hmm. yéen a dof la loolu maye. waaw ma ne ko papa loolu yéen dof mu ni yéen bis bu seen seen doom ñëwee mbaa seen yaay ñëw ni leen sama jëkkër moo leen dóor ba ngeen jël yat mm-hmm. bis bu meram jeexee buy ñor di saagam dem di juboo ji di ngeen jooy te kenn du leen nax mm-hmm. situation kenn du ko rek leen yi waaye ba mu dal dafa mer jox leen ko ndox mu naan jox leen ko mu añ ngeen toog déglu ko feeg ñetti fan feeg ñaari fan ba mer mi wàcc noonu la ñuy réglé problème waaye yat du ko réglé incha allah moom itam loolaay jox góor gi mm-hmm. jamono bi sa doom di ñëw di la nettali sama jëkkër li sama jëkkër laa meer la wa mm-hmm. waaye mbëggeel gaa nga fa tey mm-hmm. anamu tey ñëw na taxaw ni la dama bëggat sama jëkkër kee ñëw ni dama bëgg dama bëggat sama jabar ñeneen bismillah bu yëdde ji jeexul takkal koy bagaasam bu yidda yi jeexee nañ joxewaat can ñaan ñu mayee ko mu dem sëyi lekkoo ko naanoo ko keneen du ko lekk mm. nañu bàyyi xale yi ñu commercialisé nañu bàyyi famille yi ñuy dispersé mm. xamoo lu yàlla namm ci diggante boobu mm. xamoo ndax éliman dana ci judd xamoo président de la dana ci judd xamoo homme de bascule xettali nit ñi dana ci judd nga bëgg koo xañ loolu ëllëg boo dajeeg sa borom dana la laaj lu tax nga bañoon sëy bi nga naan lii la wala laa la yàlla ne loolu foo ko mm-hmm. teg mm-hmm. bu boobaa looy wax te mbàkke ñu suul nit ci bàmmeel mm. di bëmax suuf ba séeréer duñu perkaal bi wóor leen perkaal bi boo ko séeréer yàkk yaa ko fekk si fekk yàqaloon nga ko lenn ci àdduna bu bëggee daje ci suñu kanam borom looy wax mm. loo koy nettali mm. bis boobu jar na di xalaat de jërëjëf jërëjëf Imali eh, jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy jëfal bu baax a baax xam naa mi ngi noonu eh, dafa mel ni itam waajur wi bu fekkent ne mayewu ko ndax keneen kañ na koo mayee ku dul waajuram waaw comme âge bu mu toll nii comme masoon naa si ak moom ba divorce nanga dem ca nijaayam hmm. mbaa mu dem ca rakku papam hmm. mbaa mu dem ci ku am baat ci kër ci famille bi hmm. ndax tam laa nekk laa bi wali eh, kilifa kër gi baayam bu fekkee am na lu mu gis ba du mayee te waxut dara lu taxaw. pour éviter njaaloo ak doom yi judduwul ci yoon. Mm. no dem ca sakku papa mu maye ko mbaa mu dem ci nijaayam mu maye ko. d'accord macha allah jërëjëf Imaam Ali jërëjëf mbokk mi ci laajam bu am solo boobu ki ci toppoon mooy sëñ seen mm, seeni mbubb moom dafa dagg waaye laataa mu doon dagg sax ñëwoon na ñun ba ci sóoratul fajri bi mm-hmm. waaye da koo joxoñ rek ne daa bëgg nga ñëwal ko ci sóoratul fajri am na mbokk mu ñëw sax sóoratul fajri ci biir a waaye moom joxoñ na sóoratul fajri loo ko ciy indil waaw yaa fajri day suuratul fajri saar la waxante ni suñu borom ko tuddee fajar fajar mooy atmosphère fi jant bi génne diggante ñaari transition yooyu xamante ne luy leer fa lay leere luy lëndëm fa lay lëndëmee suñu mbokk si Lamine Niass yàlla na yàlla yërëm te gërëm ko daawoon na wax ni bu jant bi bu maanaam bu lëndëm gi demee ba leer gi ñëw wala yaalin asri waaw ndeysaan loolu mooy alfajr hmm. fajar moom bu xasee ñëw day gën di leer rek waaye dootu gën a lëndëm dootu gën a lëndëm waaw fajar moom mooy jóge ci lëndëm nga jëm ci leer gi la jëm ci leer dëgg la de waaw kon nag hmm. ah bu dee coronavirus bi la ci junj na ñu jóge yàlla nañu yàlla jële ci lëndëm jëmeen ci leer amin kon xam naa ni une semaine bi ñu toogagum wala deux semaines yi ñu toogagum ci njàqare hmm. ah, yàlla na yem tey dëgg la weekend bi ñuy dugg yàlla na gën a neex yàlla wax na lu neex wala boog docteur yi wax na lu neex mu jóge suñu borom. amiin amiin yaa rabbal aalamiin loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy la doon. macha allah loolu am na solo jërëjëf. seeni Mouhamed Diop AIBD suñu xarit boobu ci aéroport moo ci topp. Mhm. ñu ngi koy nuyu moom de dafa indi rek ay nuyoo ak ay siyaare ak joxe contribution ci actualité bi. waaw comme d'habitude moom Mouhamed Diop moom suñu mbokk taaru bi la. Eh, nit ku baax la moom day dugg ci émission yi. Mhm. saa bu duggee rek moom day joxe xalaat. dëgg la euh, kon Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax. di la ñaanal tam wax dëgg yàlla li nga nuy ñaanal. yal yàlla boole na ko ñun ñëpp. jaay seen wujud wa alam suud. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jërëjëf oustaz jërëjëf sëñ Mouhamed Diop ki ci topp soxna si leboon aw turam la. waaye dafa indi ab laaj euh, wala sëriñ bi dafa leb aw turam daal nee na julli timis la dafa ñëw ci jàkka ji imaam rawee ko benn rakka. wala boog mbokkam mi duñ julli rawee ko benn rakka mu ànd ak moom ci julli gi. nee na bi kooku demee ba am ñetteelu rakka taaya nga xam ne daa waroon a sëlmal waa ji ci boppam jóg nee na bi mu jógee mu sàbbaal ko waaye dafa continuer rek dem nee na mu jóg topp ko bi mu ñëwee ba am ñetteelu rakka nee na waa ji dafa sujjóot dafa sëlmal sujjóot waaye moom mu jógaat indiwaat beneen rakka mottaliwaat nga xam ne day mel ne ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne julli na ñeenti rakka booy xool ci julli ji mm-hmm. muy laaj ba xam loolu noonu la wala déet waaw déedéet du bu fekkente ne dafa sujjóot ndax parce que moom ci li koy li tax lislaam bi ko tënk mooy ndax xamul ndax waaj dafa sànni rakka wala déet mm-hmm. xam ni mën nga ñëw dab nit fekk mu sànni rakka mm-hmm. xëy na rakka ba nga fekkiwul mën na am défaut am ca mu sànni ko mm-hmm. moo waral boo ko sàbbaalee ñëwul da ngay jóg fekki ko su dëgg moom itam bu fekkee dafa sànni rakka eh, de noonu lay def bu sëlmalee day day day day day taaya day day taaya baal day sujjóot baada salaam kon yow na nga def noonu la topp ko rek moom ba mu sëlmal waaw bu doon day sujjóot xabla itam da ngay sujjóot xabla doo jóg waaye bu dee fa sëlmal sujjóot baada yow da ngay bàyyi ba sëlmal door a sujjóot baada da ngay jóg indi beneen ràkk mottali da ngay indi beneen ràkk mottali doo koy topp ca loola nga xam ne même bu fekkee ràkk bee da koo sànni yow da ngay ànd ak moom ci li ko tënk lépp da lay tënk moom li ko tënk lépp daf yow daf lay tënk mm. maanaam dab imaam moo gën a jafe ci julli mm-hmm. waaw moo gën a moo gën a moo gën a difficile mm-hmm. donc kon ñëw ñëw nga fekk moom rawe na la ràkk mm-hmm. julli timis la mu toog deuxième rakk nga toog ndax moom moo la tënk mhm. mu ñëw troisième war a toog toogul jóg jëm indi quatrième nga toog sabal ko def nga sa yoon na nga def noonu la mhm. moom itam bu ñëwul nga tag sëgg jugal dem bala moo sëgg ndax rakk bi dalay raw boobaa yow doo xam foo nekk ci lay gën a compliqué ci yow mhm. ndax mën na mu sànni rakk comme moo lay koy mooy sa yilimaan da ngay jóg da ànd ak moom sëgg siggi léegi nag kon jàpp nga ne moom def na ñeent moom mu taay mu taay sëlmal léegi yow jógal kon indi rakk bul sëlmandoo bul sëlmalandoo ak moom mhm. indi rakk boo indi rakk ba pare nag door koy laaj lu xew bu leen dama sànni rakk fekk yow fay nga rakk mhm. dama sànni rakk nag boo ka yow ah mooy loolu mhm. jërëjëf Oustaz Mbaye <laughs> jërëjëf ci tontu lu am solo loolu kii topp itam lépp aw turam jotu koo wax waaye dafa indi rek ay commentaire am ci actualité bi rawatina mbedd mi ak dóore gi nga xamante ne ñu ngi ko doon dóor nit ñi waaw lu loolu de moo xam naa ku nekk ak ni nga ci gise waaye mm, wax naa wax ju rafet ñaan na tam ci euh, autorités yi ñaan na également suñu mbokki police yi nga xam te ne ñoom itam ñu ngi ci mbedd mi ñaan na leen te loolu tam man maa ngi koy rafet rafetlu mm-hmm. mais li ëpp solo te ëpp solo rek mooy nit itam mu xam rek ni lépp loo mën a ñaan na fekk nga am yër gi yaram mm-hmm. tey kat li xew Italie bu fi xewoon dana gën a métti ci ñun li xew Chine bu fi xewoon dana gën a métti ñun kon boobaa dootoo tar sax guddee ak naan damay wuti dara ak damay damay di dara kon bala ñu fay àgg nag ñu taxaw arrêté ko ci sunu façon ndax ndimbal na ci fekk loxo borom. macha allah jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafetlu dugam bu am solo boobu ki ci topp di eh, di lan di njó. di joojo joojo ngoom nee na daal oustaz ki nga xamante ne dafa dégg ci médecin yi wala ñuy wax ci wàllu wér-gu-yaram ñu ne tawat ji bëggut nit ki ak putam di wow maanaam baatam fi muy jàllalee li muy lekk mm-hmm. di wow ak yooyu ni ñuy góorgóorlu ba mu tàng te ñu ko yëngal lu baree bari kon lekk ak naan da ciy baax nee na ñi nga xam ne dañuy woor altine ak alxames ci jamono jii nee na loolu lan la ci lislaam wax waaw siit di am na ngàntal far mm. siit mm. am na ngàntal far mm-hmm. kuy ami far di ami far ba ñu lay muur nga sëy bu mm. dëgg da am nga am nga ngànt <laughs> ndeysaan situation bi daal fi mu toll nii mm. ndegam jumaa yi la <laughs> ñu tëj lañu lañu ni bu ñu fa daje xawma laa kooru ngàtt nga dëgg euh, dégg naa nag yooyu la bañ nee nañu nee nañu nañu déglu ci docteur yi lu wér mm. docteur yaa ngi ci rajo yi disponible wax dëgg yàlla donc kon bu kenn def dégg naa wala foog naa mm-hmm. euh, sa put bu dee wow comme da ngay woor te jamono neexul. Mm-hmm. xamoo ko mën a am xamoo ndax am nga ko am déet. Mm-hmm. del naan ndox. te day mm-hmm. naan lu tàng te xaar. ndax kooru ndegem kooru farata gii ñëw lu ñu xamagul lu docteur yi wax. waxuma la kooru gàtt nga. dëgg la kon kay siet am na ngàntal far. ma ngoog macha allah siet am na ngàntal far <laughs> wax ju xoromoo ngi noonu waaye <laughs> <laughs> lu ne da ko wax de dëgg dëgg wóoru koo am de. waaw biir seet kër kenn xamul luy mbiram <laughs> Moussa Cissé Morona nee na ku bàyyi ñetti ajjuma dafa dégg ñu ne daal euh, dañ koy bind ca ñu sàggan ña muy laaj ba xam bu ñu tegalee ñetti ajjuma yuñ julliwut nii baa du demee noonu situation bii moo ñu tey julli ji ku sàggan ki la ñu koo xamante toog na nit ñaa ngay julli ca jumaa ja mm-hmm. nga nekk sa mbirum àddina nekk sa yittey bopp mhm. julli ji woo ba am ñetti àjjuma yoo xam julliwuloo ko mhm. dañ lay bind ci liste rouge ñu sàggan ñi mhm. al xaafiruun xam dañoo sàggan sàggane seen diine waaw nga nga yelloo yedd nag billaay te yelloo du duma yàlla mm-hmm. masha allah eh, kon bu fekkente ne ngànt tax ci lay door a tegu daal ci lay door a tegu maanaam nga xam ne jumaa yi ubbi woon na ñu ngi julli ngay mm-hmm. nàngam waaye ki feebaroon am ngànt wala mu tukki woon tukki yu tegaloo am ngànt wala eh, yooyu yëpp ngànt yi taxul ñu koy lim mm-hmm. wala wala tayal nga rek ki tegal daal ñàkk julli ji te ngànt te ngànt taxul loolu loolu foofu la ñuy wax même te taalibi cheikh yi def xadara jumaat sax noonu la noonu la ko cheikh wax hmm. euh, ñu kii euh, ñetti xadara jumaa ngir tàyyeel ak mbiri àddina hmm. kooku dana yees lu jiwaat macha allah waaw jëlaat wallahu taala alam jërëjëf jërëjëf imaam alxaaji oustaz Alioune Mbaye ci tontu lu loolu Ibou Ngoné mbeng dafa indi ay siyaare ak ay nuyoo waaw xale bu yarute baax hmm. moom moom la ay baayam ak ay nijaayam jiital Euh, ñi nga xam te ñoo tuddee seen bopp soppe Sud FM. ndeysaan. Euh, ay mag nag di boroomi xam-xam di ay kàngam. dëgg la euh, nekk ca mbooloo mooma. Mm-hmm. di ko initier ak di ko xalaat. Mm-hmm. donc boo ci déggee boo ci tuddee Père Birahim. Mm-hmm. nga xam ko muy mag mu am solo mm-hmm. dégg ci Sarr Mara di borom xam-xam mm-hmm. kenn sàngom liggéey ci santé nit ku mm-hmm. baax ak maître yi mu tudd nii ba nga xam ne mbooloo moom duñ mbooloom caaxaan dëgg la euh, Alxasan Fall suñu xarit moo tam ñëw na fi wax dëgg yàlla ba ñu waxtaan muy nit ku baax moom tam bokk ci fii donc kon moom dañu koy rafetlu ab duggam même bu amul lu muy laaj sax dana dugg. ba ñu xam ni moom li muy wax ci soppee si dafay dëgg la ci moom. Mm-hmm. ci émission yëpp nag kon nag ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal. macha allah jërëjëf jërëjëf ci jaajëfal googu ak ñaanal gi imaam yi ñu jaajëfal ko baax ci topp mooy njaga fekk njaga suñu xarit da daan dugg rek indi ay siyaare ak ay kii waaye tey ndeysaan boole na ci nee na nañ ko waxal kilifa yi daal. Mm-hmm. ñu jàppandi leen leen ñoom ñi nga xam ne dañuy liggéey eh, te bëgg dem weekend ci seenu njaboot nee na ñu am këyit yu tax ñu man a dem weekend <laughs> waaw fii ni day moom day na mm-hmm. ah, wax de jago nag ndax tam boo bàyyi sa soxna Thiès ah bëgg toog nii xamoo ko ngay dem loolu tam du du sotti mm-hmm. ak yolamal ci côté ba war naa mën a am mm-hmm. fexe ba am ak yolamal daal ci mbir mi eh, dox doxal teg yërmande du ñëpp nag waaye ña dëkk ña dëkk Thiès tey liggéey si fii war nañ leen wutal ay kayit yu leen mën a permettre ñu ñëw liggéey si euh, doonte nag dañuy togg xay na beneen weekend ba weekend ñu may leen permission ñu dem mhm. ñi nga xamante ni seen njaboot ñu ngi Touba ba seen njaboot ñu ngi Mbuur ba nangam nangam ah war nañ leen a mën a may nag permission dem seeti seen njaboot te ñëw <laughs> waaye loolu la ñuy bañ ji jaxasoo gi la ñuy bañ ji waaw comme amoo ko ñoom amuñu ko te ñu nga fa ah waaw fi mu ne kat kenn xamul ku ko am ak ko mun moo tax ñu ne na nit ñi toog bu boobaa itam kay kii dem ngénteen ne nañ ma may rek maa ngi tudd doom ji te wàññeeku ndax xam naa ne waa kër ga amuñ ko waaw de restaurant ma def nangam rek xam naa ne amuñ ko restaurant moom tudd ma tudd moom mën na ko def imaam bi rek ngay war xale bi jox ko mu tudd <laughs> eh. waaw loolu mën na ko def eh, non tudd koy mën nañ koo def waaye dem di tuddi laa wax man mii amuk takk wala ma amuk tudd gu ma war a dem wala nangam yooyu yëpp boobaa da nga naan eh, yow kat daa mel ni yaa teengaloon ba mu yàgg nga bëgg a yolomal bi ngay xarit soxlaa këyit bi nga a yolomal <laughs> bañ jot xaaral <laughs> yolomaluma de ah. dama ni dama ni hmm. kii jabaram nekk Thiès. Mm. mënoo toog fii rek di may bu kenn xamul. Ah, moom te war nañ laa mën a may nag. nga dem nga dem boo amee soo toogee. yàlla yàlla nga dem seet sa soxna sa ñëw. Ah, boo toogee une semaine. Mm. mën nañ la war a may kayit nga dem ci jiw. Mm. dem Thiès jiw loolu kay naa nag aay. <laughs> baax na kay ñaan nga it teel aay wax kay moom nga dem seet sa jabata ñëw. waaw mm-hmm. ah. d' accord. comme da nga yoroo yóbbu dépense wala yóbbu nangam nangam. ah moom moom taarkal la nañ ñaan rek yi si gaaw moo tax man la danger bi na ci feebar bii nit ñi bàyyiwuñ ci xel am na ci ñoo xam ne bàyyiwuñ ci xel mm-hmm. dafa mën a yàq tous les secteurs du service que économie rek la gars yi di wax mm-hmm. waaye même relation humaine yu bare ba da ko mën a yàq mm-hmm. da ko mën a yàq dëgg la am na solo de dëgg la de mm. macha allah am na solo jërëjëf a Alioune jërëjëf sëñ Ndiaga ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko masawu uh, bu baax a baax loolu am na solo mm. Mm. kii nee na nan la ñuy ñaanalee ku waaw ñaanal ko faatu de moom yii ne yii ne ji ngay dugal mm-hmm. bu dee sarax la nga yiine yool bi sama baay wala sama yaay mm-hmm. dem nga ci jàkka ja laajte facture ndox mi mi jox leen ma ko ma def ko sarax sama téere jëfu yaay wala sama papa mm-hmm. loolu bëggees na ko eh, togg ay ñam jox ko daara yi ñu jëfandikoo ko wala nga wut bool boo xamante ni da nga koy jox ndongo daara nga nga nga yaayoo ko wala nga bàyyoo ko. Mm-hmm. ñu di ko tibbal muy ñëw di añ ci bëccëg bu jot. Mm-hmm. yool bi nga def ko ci sa téere yi wa jur. Mm-hmm. jàngal Qur'an dara gënu ko rëy. yéene ko yoolub alxuraan tuyaaba yépp nag njàng alxuraan la ci gën mu cëpp doole. dëgg la nga jàng ko yé jël yool ba yéene ko. parce que ñu bari dañu gis nii. njàngam alxuraan bu ko dul jàng ak bu ne kooku suñu xalaati bopp la waaye suñu borom subhaanahu wa taala yërmandeem fu ne mën na ko fa jaarale doo gis bu njàngee pare ne allahuma balliq sawa ma qaranaahu wa nuura ma talawnaahu min kitaabika al aziz hadiyatan wasilatan mutasilatan minka ilayka baadal xaabulana ila ruux sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nga xamante ne ruux am yëpp moo arrosé yeneen ruux yi wallaay nga door tudd nag ki nga xamante ne mooy si wajur mm-hmm. ilaa ruux yi diw ilaa ruux yi wala jiw mbay man mm-hmm. sama yàllaa ko njëkk yi gën a yéene bu mm-hmm. defee yàlla du des ci moom rek du tag yàlla dara du tagee ci moom mm-hmm. te yërmande mën na ci jaar jéggal kooko waaye bu kenn xalaat ni bu bu aay bi waxee dóor wala aaya am lu mu tere nga ne ah kon doo ko woon tere kon yar baa ngoog kooku xalaatu doomu aadama la alxuraan li muy faj bari na wa nunazzilu mina al-Qur'ani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin macha allah jërëjëf oustaz tontu li am na solo alxaaji Lamine Ndiaye mi duggoon ay yoon yoon ñëw na ci nuyoo waaye ñëw na ci ay joxe ay ndénkaan ak ay conseil yaatoo yaatu ci ñu fàggandiku ndax mën a mucc ci jàngoro ji. Mhm. bàyyi Lamine bàyyi Lamine ku baax Diagne bàyyi Lamine fële ca Ndar. Mhm. waaw ndax ku ko dégg sax xam ne euh, métier la moom moo mu bokk la ci laajurub docteur. moo mm-hmm. taxoon mu doon waxee noonu. Mm-hmm. ak di jox yooyu direction. comme dañu ni situation fi mu toll nii bu kenn joxee benn xalaat nañ déglu docteur yi nga xam ñoom la seen màcc xel xam màcc ci loolu. Mm-hmm. moo taxoon sax ñu ne woon mu xaar rek waaye teewul dellusiwaat na ñaan itam ñu dimbali docteur yi mu ni ak itam ñu jox leen euh, loo waxoon ci jox leen. <laughs> am na lu mu wax ni nañ leen ko jox de. Hmm. ndàmpaay xaw ma. ndàmpaay waaw prime prime waaw. <laughs> waaw moom kay war na leen jox sax lu passé prime wax dëgg yàlla. ndax wax ma dara sa waaye ni ñuy nit ñi rek. Hmm. dëgg yàlla mérito nañu lu nekk. Hmm. suñu docteur yi gàcc ngaa la am. moo tax gis nga mbàkki. léegi nga am loo wax rub ba ma nu ñu ko waxeete. Euh, rub maa laa yuujadu fi dax fi naxari. na loo mën a fekk ci dex te doo ko gis ci géej. ndax tey. dëkk yu bëree bëri bëri ëpp ñu doole fuuf doo fa dégg géer yi hmm. maanaam faj nañu nàngam hmm. waaw dégguma ko fa dëgg la waaye Sénégal nag lu bon bon yaa ngi dégg yi diw génn na hmm. diw wér na ba génn na ñibbi na ñu def ñu ngi ci traite ñu ngi ñu ngi tane kon loolu suñu docteur yi gàcc ngaalam amuñu moyen certes amuñu yenn moyens yi ci xaalis ak ci technique ak matériel waaye nag la ñu am ci sin mooy lu mu tuuti tuuti tuuti ñu nga cay ñu nga cay dalal sunu xel mhm. kon yal na yàlla jàppale leen amiin amiin euh, Pape Sidi Fall bi lay nekk ci deses ci bi moom dafa ci TFM léegi waaw dana bokkul ak boobu ah Pape Sidi waaw kooku ah, ah, ah, moo am kii dumbula kele mooy borom <laughs> borom létt yi <laughs> mooy bu dangereux boobu euh, ba mu waxoon def benn slogan bu am solo mu ni bu ñu xëyee daal ba ba ba euh, dix-neuf heures da kenn ku dugg sa fenêtre rek tàcc docteur yi. daa am na fu mu ko gisee waaye nañ leen leen ñaanal rek ñu xam ne rek ñu xam ne ñoo nga ànd ak ñoom. Mm. avec tout cœur. Mm. xam ne dëgg-dëgg ak suñu xol ak suñu yéene. ku mm. julli na leen ci. tey amoon docteur tey rek fier nga nous sommes fiers de vous ci seen taxawaay wax dëgg yàlla. dëgg yàlla sàmm leen tey docteur affaire bi wér. Mm-hmm. mbàkkeem naa suma sëriñ bu ñu wax sëriñ Mahfouz Aïdara. di ngi mm-hmm. jàmmalaay. Mm-hmm. waxoon ma ne ma boo sax feebar bii. solution bi Sénégal lay bàyyi ko bu ñu bu ñu toppee li yàlla wax. dëgg la de te nag ñu ngi commencé am nag. Mm-hmm. di wér noonu Sénégal rek laa koy dégg. Mm-hmm. yàlla yàlla yàlla loolu yàgg. dëgg la mm-hmm. merci macha allah am na solo jërëjëf Oustaz mbay jërëjëf euh, suñu waajur woowu alaaji Lamine njaay mbokk mi ci topp itam alxaaji mi jot indi ab laaj moom itam mm-hmm, waaw alxaaji Lamine Ndiaye ñu koy baax a baax ak euh, waa alxaaj alxaaji Lamine la ak Mor Mor Mbaye ah. Mor Mbaye waaw moom itam dafa indi ay siyaare ki ci topp nekk Cheikh Tidiane Diatta mm-hmm. moom dafa wax rek ne màndargam bis penc la bëgg nga wax ko mm, ndax am na ci yoo xam ne léeg mu feeñ xaw ko nuru yan ak yan la moom kay bokk na ci lii mooy bu ngeen ba am feebar yu leen te huit xam leen ni yéen a ngi jëm ci aaxiru zamaan bu ngeen demee ba jigéen jur sangam mm. yéen a ngi jëm ci aaxiru zamaan mm. bu ñu demee ba njaaloo gi kenn nëbbatu ko mm. riba bi noggatoon te geeg néewalante doole gi tem kenn nëbbatu ko dem ba ñu war a wax kenn ku ci nekk di jaay sa morom maandu ku nekk ne sa roq ni pat jàpp leen ni yéen a ngi jub aaxiru zamaan siiñ yooyu yëpp nag ñu nga ca ba adduna bi day jeex yàlla nam mu jeex yàlla mu jeexee nii nag amiin waaye ku képp kuy croyant ku way gëm mm-hmm. te gëm nga ne adduna bi day jeex mm-hmm. situation bu présenté wu bu nekk mm-hmm. jàppal ni bu boo deewul ci biir di nga dee ci beneen ndax corona ngi rey waaye sibiroo ngi rey cancer a ngi rey yeneen ak yeneen ngi rey oto yaa ngi rey accident yaa ngi am xëy na accident yi moom jël nañu pause ndax comme daw amatul moom alhamdulilah rabbil alamin waaye amul dee ci nii rek mbaa daa dee ci ndax. wallaay ndax kullu nafsin zaa'iqatul mawt jàll waxoon. Mm-hmm. ala kulli haalin dana am. macha allah am na solo Imaali jërëjëf ñu jaajëfal la ju baax waaye jamono de lu nekk lay indi. Mm-hmm. ak ni muy ñëwee nee na koor gi moom ndax dañ koy kii wala dañ koy reporté. déedéet koor ëpp naa reporté moom koy xanaa. Mm-hmm. ñaan yàlla ba luñ ca àgg nag ko dëgg yàlla nag kooroo dem na. xam nga kooroo mii moom daa amul daa am lu dégg. am lu dégg jat nañu ñaan nañu lu ne wax nañ ko mu mu mu rek waaye euh, Cheikh. ñaanal yàlla rek balaa balaa ñu yegg ci koor gi. Mm-hmm. moom ñu naan ñu naan partie ngeen bi si coronavirus amee. Mm-hmm. nii walaa demee. ndeysaan yàlla na koro demee noonu. Mm-hmm. bañ a laal kenn ci réew yi mu laalagul yàlla moom fa àgg. dëkk yi mu laal muy suñu dëkk bi di Sénégal raison yi mu laal yàlla na fa jeex takk te bañ a demaat ci beneen raison. te li koy liñ ciy dimbali mooy toog bañ a dem di ko jëli. boo ko jëliwul rek moom da gaa yi dañ ko wër ndomba. Mm-hmm. incha allah incha bu ñu ko wëree ndomba nag mu dee. Mm-hmm. kenn bañ koy bu fenn. Mm-hmm. dootul law dootul law kon nag yàlla na yàlla yàlla yàlla dimbali. ñu yàlla jàppale. jërëjëf Oustaz jërëjëf mbokk mi ci mujj aayab alxuraan la laaj eh, kii la mm, suñ mbàkkee si la. bële nee na suratul faj la ñëw aaya 20. ci laajam bu njëkk mm, aaya 20 ci suratul fajiri du sori fa borom bi di waxee naan. Mm, wala kii wa taakuluuna turaasa aklan lamma wa tuxibuuna almaala xubban jamma mooy wa tuxibuuna almaala xubban jamma kalla ida dukkati l dakkan dakka wa rabbuka wal malaku saffan moom itam du génn ci àngal bu foor taakuluuna turaas bokk ci yii ñu dal mm-hmm. nit ñi dañu bëgg alal bëgg gu xir li nu dal lépp lool la riba bi lekkin wu ñaaw wi noggatoonte bi réew yi am doole di dund ci kaw réew yi amul doole ngóor jigéen gi ñu di ko jor comme marchandise moo xamante ni dafa valable réew moo wàcc ñu ne nu ngeen def ak moom ndax bëgg ngeen ko ndax jublu ngeen ko am ñuy diit diital am ñuy meem ci suuf mu mel ni loolu dafa yàlla daal tereetul dara maanaam daal nit ku lépp lu ko bakkanam ñoo di rek mel na ni daal war na ca mën yooyu xeet dara waralu ko lu may xubbal lépp lu dërëm di génn boo tekk nit ñi fekk la dëgg la sunu baax na yàlla jox leen rek lay dox leen rek. Mm-hmm. Euh, taakulu na trois cent ngeen di lekk nag. Mm-hmm. ak lan la man lekk goo xamante ni ëpp na. te bëgg àll de la dong la. kala billahi isa dukkatil ardu dakkan dakkan bis bu ñu lemee suuf yi sëpp ka lem suuf moom mii moom mi ñu nekk bu ñu ko lemee sëpp ko wa jaa rabbuka sunu borom dikk wal malaayka wal malaku safan safan malaaka yi def ay sapp sapp yu rafet njëkk ñi fi nu rogg hmm? wa jaa isin bi jahannama wa ji hmm. a ji a yowma isin bi jahannama ji ñu indi wa a ñu indi bis boobu bi jahannama ci safara tey booba yatazakkarul insaan nit door a fàttaliku nag hmm. waaye nag année la woo zikra fàttaliku ngu bu lu mu koy jëriñ dara loolu teen fàttaliku fi avant avant lii yëpp di xew dara mun a yàqu yàlla it na xadantu li xayaat mm-hmm. ay ak a neexoon tey sama dundu ga ma defoon lu baax mm-hmm. ay ak a neexoon sama dund ga mm-hmm. ma bàyyi woon riba bi ak a neexoon sama dund ma bàyyi caaxaan yi ak a neexoon ma ànd ak ñoom diw ak a neexoon ma déglu woon diw ak a neexoon ma ànd ak alxuraan ak a nangam nangam sunu boobu nag jeex na dalaay jeex na incha allah allahu akbar jërëjëf bala jee gën a ñu waaje suñu bopp amin yaa rabbal alamin jërëjëf Oustaz Mbaye beneen laaj bi mu ci toftal bi mu ci toftal nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata at la wax ne lay tëdd ci biir suuf ñii de nee nañ ñaari junni at am na ñu koy dañu koy wax mais gisuma ci sulaayam hmm. hmm, borom xam-xam tam waxuma ko waaye dama dégg ñu yoon bi saa tam nee woon na du du tëdd ñaari junni at te àdduna tukkiwul hmm. eh, bu am naa nag loolu nag moom xam naa bu saas nekkoon moom dana ko <laughs> dana ko gën a leeral ndax moom moo xam lépp kon su ko defee xam naa foofu moom bu dee loolu la wax waajal bu fekkee waxu ko waajal képp ko sa bis jot yow si yow ma xiyam taxaw na <laughs> macha allah <laughs> ci gàttal daal. Mm-hmm. képp ku sa bis jot sa yowmal taxaw sa yowmal am taxaw na. Mm-hmm. waaw bis ba ñu lay nag ñëpp nga xamante ne eh, wa ma xabi xaayibin kenn du tardé. Mm-hmm. boo moom yàllaa ko xam. macha allah waaye waaj daal nga xamante ne jamono bu malaak mi jeex fekk takk nga say bagaas jàppal ñu sa yowmal xiyam taxaw na. wala taala jërëjëf Ima Ali jërëjëf mbokk yi ñu doon topp oustaz dafa mel ne loolu mooy laaj yi nga xam ne moom la mbokk yi jot a indi ci jotaay bi. Euh, loo indi bu bëccëgee. waaw incha allah maa ngi war a daaneel incha allah yonent yàlla luut. waaw yonent yàlla luut nga xam te moo yoroon góor jigéen ñi. Mm-hmm. incha allah moom la ñuy daaneel. Mm-hmm. bu ñu fa daaneelee nag bu ñu fa suñu borom ci guddi gi. Euh, xam naa ni situation yi tëdd nii. Mm-hmm. Euh, Ndeye Mariam mi ngi wax ni que comme situation oblige. da ngay def télétravail rek. wala wala boog travail en distance. travail en distance. wala boo ñëwee lii fii nga ñëw. waaw. man gàtt laa Mbacke mos na waa ñam liif uh-huh. liif hmm. naa ko ñam ñam naa ko ñaari yoon yàlla nañ ci dégg doy baaxul de hmm. ak a bon jërëjëf sëy bi ak di jërëjëf bu ñu doon génn génn kilifa diine hmm. ma bokkoon ca liif dafa mel ni kaani <laughs> yaa jëbañ ko dóoree ak xiir la ko daa wax ko doon àtti ne ko bàyyi ma ma xalangu baax na yaa ngi ree musiba yàlla musal jërëjëf xam naa boo noppee ci loolu danañ leen dëkkalaatal tafsiru quraan oustaz Alioune Sall hmm. fàttali ko ndeysaan jàpp mbax na ndokkeel ko baax moom mi ngi ci am nopp noppalu hmm. eh, xam naa daan na génn réew mi jamono ji def ay conférence yoo xam ne daan nañ ko xaar Italie Espagne léeg-léeg ba Allemagne waaye ni àdduna bi bindoo corona euh, tax na mënta dem xam naa mi ngi ci diggante moom it daaru cubbak cité enseignant Mbàcke <laughs> juppal <laughs> oustaz foo mën di nekk di ñu déglu ñoo ngi leen nuyu baax baax di la jóge ci àjjuma ji ah moom day gis nga corona day gis nga li mu def. corona bon. <laughs> baax na moom yàlla moo tëri kon imam Mor Seck moom tam ñu ngi koy eh, jéggalul mm-hmm. incha allah moom comme ni koro bi demee mm-hmm. xam naa du man ñëw maa ngi xool nag incha allah bu fekkente ni avec Ndeye Marème mm-hmm. eh, ci ñëw ngoon bi nu ñu ko defee rek muy noonu daañu def travail à distance wala wala nu ñu ko taree rek noonu la incha allah shukran jërëjëf imaam yi bu ñu noppee ci tafsiru xuraanu bi ak oustaz Alioune Sall yi danaa gont fii ñëw ànd yéen seen jotaay boobu nga xam ne mooy xamtu euh, wuutu fii Marie Rosalie Ndiaye ci ay bis gi yëpp mi ngi doon def stop corona mm. léegi waa daara ji itam danañ ñëw def stop corona wu daara ji <laughs> mm. ñoom itam incha allah ñoo ngi leen ciy jaajëfal baax ndax loolu mooy actualité bi shukran euh, oustaz Mbaye jërëjëf jërëjëf All right. siirook na jaaratulla